ay gaal yu ñu aj ay kees ak ay paani jën yu vide lii mooy xar kanamu tefesu yeeni géej li ko waral mooy mool yi dañoo reçu dañoo jot benn message boo xamante ne mu ngi jóge si météo météo di leen xamal ni àjjuma samedi ak dimanche muy weekend bi yépp géej gi dana sedd ànd ak ngelaw muy nag ay risque yoo xamante ne mool yi comprendre nañ ko ba tax demuñu géej ñu déglu ci ñenn ñi. waaw comme affaire météo bi ni nga ko waxee aussi tamit dëgg la presque ñun démb ngelaw li def na effet si gaal yi demoon géej yëpp presque majeure partie bi tey boo gisee sax gaal yi tey demuñu géej ñun ñoom ñëpp ba aussi man mii sax toog tey dewuma géej parce que ngelaw li moo ñu sonal ngelaw nag torop nag trop trop xanaa dañuy ñaan yàlla rek fii ak suba comme météo bi moom dimanche la wax ñu ngi xaar daal suba mu may ñu beneen temps boo xam ne dina uteeg temps bi ñu nekk nii waaw sonal nañu torop xam nga liggéeyu géej moom moo ngelaw ànduñu bu ngelawee moom sa gaal lu mu rëy rëy rëy wala lu mu xam nga nu mu mënti tool tamit dina la sonal si géej ñaan yàlla rek mu dal ak jàmm ak salaam ñu mën a delluwaat suñuy activité marée yi dañ koy yëg mool dañ koy yëg parce que ñun ñaar ñoo bokk ñun naan ñaar ñu bokk euh, teen ñoo bokk baag aussi kon bu méttee si ñun rek day métti ci ñoom ñoom xam naa xëyaguñ mais si kanam tuuti dinañ xëy instant yi moo fi nekk comme ni nga ko gisee daal presque gaal yi rek war nañ la firnde gaal yëpp presque demuñu géej tey ay benn benn xam naa dañoo demul woon géej démb wala bërki démb ñu mujjee forcé pour dem géej pour dem xoole ji seen mbaali mais ngelaw daal moom bu météo annoncé moom li gën a wóor mooy nga toog parce que géej moom du jeex waaw du jeex li nga fa bàyyi rek nga fay fekkaat kon jarul la man moom dama koy wax ma ne météo saa bu annoncé ne géej gi neexul rek man damay toog du ko forcé parce que liggéey tey liggéey suba moo gën nga liggéey benn fan mu ni la ay tolof tolof yoo xamante ni après da ngay toog di ko regretter te loolu lépp ñun war nañ ci mën am ay njàngar instant yi toujours météo mu ngi ñuy wan boppam démb maa ngi seetaan journal sax mais mi ngi koy firndeel tamit dëkk yëpp affaire bi noonu la fa mel presque gaal yëpp demuñu géej kon ñun daal nañ topp sart yi météo wax bu nee toog leen ñu toog bu nee dem leen ñu dem parce que tamit suñu wér-gu-yaram rek la ñu bëggal bëggaluñu leneen tey mënoon nañ toog bañ ñu ko wax ñu dem am fa ay problème yoo xamante ni xam nga ñun lay coûter cher ñoom dara du leen ci dara dara du leen ci fekk. situation boobu nag. du mool yi kese la laal laal na mareyeur yi laal jigéen ñi xamante ne dañuy yëngatu si njaayum jën ñu déglu leen. dafa am lu mu ñu waxoon ci géej dana woon dina ngelaw ñetti fan mooy itam aussi dëggal nañ seen bopp ci loolu tam aussi am na ñoo xam ne vraiment doxe nañ ko te ñu ngi koy waxtaanee ah, affaire bi moom nii la rek ah parce que mbiri géej moom chaque jour nii la mais nag boo gisee mu xaw a demee nii tey tam aussi waame bi dafa xaw a jaar kaw loolu moo tax xama mu xaw a oroo tuuti mais daal géej daal jàppal ne lépp luñ la ci wax rek si côté météo bi daal jàppal ne mën naa nekk parce que ñoom chaque jour ñoo xam ne xew ci géej gi ñun tam aussi dem ay dem kati géej lañu mais nag yaakaar naa si loolu dañ ciy basé wu waaw loolu moom lu rafet la. waaw ngelaw li. waaw daal loolu gëstu. donc danoo ndigi lu ndigi. amuna fenn fa nu dem amuna geesu mool yi gis naa géej gaa ngi ndax ngelaw bu mool demulee géej du ñu am dara na ginnaaw yàlla ak yoon tamit si la yaakaar ak suñu njaboot ak ñun ñëpp bu dëggee yàlla moom ni mool yi demulee géej gi feeñ na si ñun bu baax a baax a baax ndax alali mool Afrique gépp si lay dundee Afrique gépp si la ñuy dundee te ginnaaw yàlla si la ñëpp yaakaar te bu mool yi demulee nun kenn duñu am jigéen ñi duñu am góor ñi duñu am te it yàgg nañoo di liggéey si liggéeyu jën wax dëgg yàlla mooy suñu métier daal mooy suñu liggéey ñoo ngi def safaan ak marwa ci liggéey bi waa ñuy wër daal ku ñu mën a jàppale ñu jàppale ñu ba baa a baax a baax da géej gi amatul dara te moo li suñu ya yaa ngi seetu loo am góor a jigéen kenn toogatul senegal gépp ñu liggéey wax dëgg bépp information bu météo joxe dañ ko war respect saa yu décla defee déclaration jàmm moo seen jàmm moo waral ñu def déclaration boobu waaw te à chaque fois man gis naa am naa seetlu ne à chaque fois bu météo dafa joxe eh, déclaration si wàllu géej gi boo ko toppee jusqu'au bout da ngay gis ne résultat day am bon mais nag mën loo forcer kenn waaw mais li ñu gënaloon mooy que ñoom saa yu météo annoncé ne mauvais temps day am ñoom ñu toog mais nag xam nga nit ki yor gaalam yor këram. xamuloon len leen si posam bu forcer ne day dem aussi mënuloo loko empêcher parce que mom mom matériel ñun dal li ñu man moy que wax ak ñom ku man nga tok parce que risque la aussi waaw neexul tamit mais risque la ay risque ngi ci waaw ñun jaar jaar nañ si geej pratiquer nañ xam nañ li am si geej waaw ngelaw ci biir geej des fois ngay gis gal gu risque dem geej dem fi am na genn gal nga xamanteni dafa dafa forcer dem ba mu demee dem na ba yegg pour xawma yegg na xawma ma yeggul parce que bu mu téré dañ ko laaj mu né mom dal essence mo moo doon waaye jee mu oññ ko ñew ters xam nga déjà koku perte la parce que ya nga dépenser essence dem ba yegg waraloo war a liggéey liggéey lo nga ñew térat déjà euh, fofu perte nga essence mais nak mën loo mënoo leen empêcher pour ñu dem ñun wax rek lañ ma mais nak dal affaire bi dal mu ngi non nañ le lépp ci loxo yalla quoi ñaanal leen ñu dem si jàmm ñëwaat si jàmm mais bu ñu amoon lu ñu gënal saa yu météo defee déclaration ñoom ñu toog beneen aussi bi may bi ma gën a kii si problème mu problème mu tefes suñu tefes gi mooy que euh, seen CLPA bi parce que man dama gis ay ay temps dañu amoon fii euh, ñaare drapeau parce que am na drapeau rouge drapeau rouge bi mooy signifier que ne mool yi amuñu accès pour dugg si géej danger la mais jamono yoy drapeau banque mais actuellement les drapeaux man question boobu lay poser surtout à CLPA bi neuf. pourquoi que mesure boobu ñom respecté wuñu ko parce que fim toll ni tefes yi ngay gis ñëpp même ba yéen ko bo fa démé sen drapeau rouge mu ñu teg mais pourquoi yi tefes yi yéen géej amatul amul ki boobu amatul ñu sàggan bo lolu naax saay man question boobu lay poser encore une fois waaw mais li wóor ba mor moy que tefes gi war nañ toogaat waxtaanaat surtout ñun waa yéen géej parce que changement am na bu jëkkoon tefes boo ne tefes dañ naan laan tefes yéen géej mooy numéro un mais gis na euh, instant bi suñ tefes mi ngi dellu gannaaw te loolu loolu loolu du du yoon waaw depuis sa maam yee ba léegi amul tefes gënoon na naa tefes yéen mais pourquoi pas léegi tefes yéen géej tefes yëpp mooy gën dellu gannaaw waaw surtout nag si problème CLPA bi laay wax ba léegi problème strict bi ñu bi ñu tegoon saa yu géej masaa naxar yi ñu ñëw samp seen drapo parce que drapeau lu xonq ko gis xam ne lii danger la mais lan moo tax ñu ñu ñu sàggan ba loolu naax saay léegi mool yi parce que am na si mool yoo xam ne jànguñu am na ñu jàng am na ñoo xam ne duñu seetaan information météo yaa ngi dégg léegi de ce fait que ñoom ñu ñëw samp drapeau bu ku gis lu xonq di nga xam ne lii lii lay lii lay jëriñ bu ñu sampee beneen couleur ainsi de suite loolu foofu daal man loolu mooy sama priorité numéro un ñu respecter li nga xamante ne nii mooy lii li li lii fi amoon waaw ñu dellu waxtaanaat seen biir ñu respecté respecté waat li nga xamante ni moo fi. autre lieu même ñu ngi fii ci quai de bu Niangane lañu seetlu yenn géej seetlu ko si yeneen dëkk yi moom lañu fekk fii si ñangal muy ay gaal yoo xamante ne ñu ngi aju demuñu géej ak mareyeur yoo xamante ne gisuñu jën bu ñu jaay ay femmes transformatrices boo xamante ne gisuñu jën bu ñu jaay lu ko waral mooy xibaar bi nga xamante ne météo génn na ko ne ajjuma di dimanche géej gi dana yëngatu ba pare ànd ak ngelaw. léegi nii wax dëgg yàlla ngelaw na sedd na dama xamul nag météo nag wax na euh, mauvaise temps bi. fii nag wax dëgg yàlla moo li respecté nañ ko benn gaal demul géej gaal yëpp a ngi nuy set waaw ñun daal noo noo mën lool pexe rek ñu nekk fi di mbàllaaw ñuy ñuy rek waaye wax dëgg yàlla moo li demuñu géej waaw jàpp dañu amul suñu jàpp nag moo tax ñu nekk fi di mbàllaaw mais wax dëgg yàlla gaal yëpp a ngi set kenn gaal demul fen ngelaw nag sedd na ñëpp a ngi toog gouvernement bi nag war naa dimbali moo li fii actuellement nii nag ni moo li sonn na moo li covid bi métti na si ñun covid bi wax dëgg yàlla métti na boo xëyee doo doo liggéey dara amuloo lenn loo mën a def gaa li mënuñaa dem géej gaa ngi gànnax géej gaa ngi ngelaw mbaalaaw da nga fi sës te mbaalaaw mi saa mu dox saa du dox dañu mënoo toog rek waaye bon ñu am ñu def waaw état bi nanu dimbali état bi nanu dimbali ba baax a baax war na di gëstu mool yi mool yi sonn de waaw. ñu ngi ci bàyyi xel bu baax parce que météo instant bi léegi moom dañuy euh, dañ koy déglu bu baax parce que tey lépp lu ñu ciy déglu rek suñuy njëriñ lay doon parce que tey mu dañuy wax ay gannaax dañuy wax ay ngelaw bu boobaa ñun dinañ mën a saytu suñuy matériel après jëm ko fagandaxu di ko contrôler di ci bàyyi xel ñun moom respecté nañ ko quoi franchement lu muy dëgër dëgër lépp. loolu mom ñu koy respecté bu baaxa baaxa baax parce que xam nañ lu naxal loo gis neex mo ciy top yoy mom maîtriser nañ ko dëgg maam métti na géej gi ngelaw na am na ba moo tax su mu nekk nii matériel yi mu ngi dem géej ñoo ngi toog di patienter ah bu ñu gisee jour yo xamantene ah, temps bi neex na après dinañ mëna a dem mais wal fa dëgg yàlla moom ah, affaire nak nag metti na ñun waaw ah, mais nak sante yalla rek mais comme euh, euh yëpp souvent yi day fal dem ci aduna dañuy jëm a dund ak moom rek mais tamit du am tamit bon ñuy salit di wax yoo xamante ne gouvernement bi nii jàppal bàyyal nii yooyu daal jaru ko daal. yaakaar naa gaal yu ndaw yi te lañ fi am une semaine demuñu géej depuis booba léegi nii ñoo ngi nii toog amuñu fenn fuñ dem buñ toogee rek dañuy xëy xam toog nii si tefes nii di yoote gars yi tamit di naan caayal loolu tamit metti na torop da ngay dem tamit ñëw xam doo andi dara loolu tamit métti na gis nga gaal yi booba léegi nii li moo fi am doo am na foo dem